wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di ci jiital kilifa yi di ndokkeel uh, waa Touba ca kanam ci uh, xalaat yu rafet yi ñu am ak taxawaay bu am solo bi ñuy taxawee ci liggéeyal Serigne Touba liggéeyal jullit yëpp liggéeyal dëkk bi ba taxawaay yooyu jur lii nga xam ne moo ñu fi dajale tey mooy taxawal këru kër guy dajale ay azaka di ko delloo ci ñiñ ko war a jox ba tax ñu tey jii ñu bëgg a samp ak kuréel ab xaaj ci biir kuréel gi taxawee liggéey boobu euh, kon ñu ngi ndokkeel bu baax waa Touba ca kanam ci boobu taxawaay di sant bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ni mu euh, taxawee taxawaayam bii ko yàlla euh, taxawloo nga xam ne ñëpp la bàyyi xel léppit la bàyyi xel lu ci nekkit mu jox ca cër ña nga xam ne ñoom la ca war a jox cër ànd ca ak ñoom ba joxe ndigal ci liggéey bu rëy bii nga xam ne moom la bëgg a def tey jii kon ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a wéeral yaramam gën a guddal fanam yàggal yéeneem ci liggéey bi te ñu ànd ko moom ku nekk ci ñun lam jaman Cheikh Mouhamadou Mountakha bu tànnee mbooloo mi bokk ci ñu taf ko ci Touba ca kanam gi ñu taxawee liggéey boobu sas na leen sas bu rëy rëy boo xam ci liggéeyu boppam la ko tibbe ci responsabilité boppam la tibbee sas woowu dénk ko mbooloo mi mii bëgg a taxawee loolu loolu kon di responsabilité bu mag a mag boo xam ne baraatu zimma de cee aju mooy jullit yi war a génne asaka war ko joxeñ jox ñañu war war a jox kuréel gu dox seen digganteek gu leen gu taxaw ne moo leen di taxaw ba loolu farata jooju ñu man koo def bañ am baraatu zimma ñooñu am nañu sas wu rëy rëy rëy moo tax kon laaj na ak waggar laaj na ak teey laaj na itam di sukkandiku bu baax a baax ci njàngalem di mu wér tënku ci ay nusuus ijtihaad ak ra'yu ak yooyu yëpp euh, ak xuriyat tafkir luñ xam la ci diina lu am solo la waaye itam nag fexe ba daal taxaay bi ñuy taxawee mu jëmmal li li li lislaam jàngale dëgg dëgg jëmmal te bañ doon suñuy xalaati kese wala suñuy nangam ak nangam loolu itam war na ci ki baax a baax daal. di ñaan suñu borom defal nu ki ndimbal ñun ñëpp ñu ñiñ ci boole ñëpp ci wàllu taxawu gi ba lépp loo xam ne rek sëriñ bi bëgg na ko ci lislaam digle ko ci loola ñu mën koo def. Euh, ku nekk xam ne ni ko bokk yi waxee asaka moom ponk la du sax farata rek waaye ponk la ci ponk lislaam yi kon kooku rëy na xamees na it ne ñu bari mën nañ ko ba noppi du ñu ko def te loolu kon erreur bu réy la ab jullit bu fekkee ne mën na ponk ci ponk lislaam yi ba noppi bañ koo def ngir ñàkk xam kooku ku mat a dimbali la am ñoo xam ne it daañu ko def waaye dinga ko def ca anam ga nga xam ne moom lañ ko santaane nga xam ne kon seen alal dana dem waaye nag war tiifu azaka moom wàccegu leen kon ñoo ñëpp alhamdulilahi mat nañoo euh, gunge euh, ba yi fi leer ci ñoom euh, di leeral it ne ku dégg kër asaka yi jàpp rek ne kër la gu taxaw fii fi Touba fa waay ne ci réew mi rawatina taalibe yi yenu seeni asaka di ko fi andi déedéet ndax xam nañ ne bokk na ci charti asaka euh, fañ ko jëlee ñu joxe ko fa loolu moom Tuubaa ci kanam bi maanaa euh, al hay'a shar'iyya gi dina ci liggéey waaw waxut ne maanaam ka nekk ndar na ko yenu indi ko Tuubaa ka nekk Louga na ko andi Tuubaa su ko defee euh, ñu di ko seet fuñ ko joxe fii fii Tuubaa fu ko jege déedéet loolu ñuy dégg kër azaka yi buñ ko jàppee noonu loolu ndax loolu du xam-xam te xëy xëy a charia bi dafa fas yéene liggéey ci asaka ci xam-xam kon dina leeral ana ku ko man ku nekk soo ko génnee nu muy tolloo ak foo ko joxe. moom war bu nekk daf laa war la julli ware loolu sax doonul loo xam ne xëy na doon na gan gan ci bokk julli di man ko xamal ndax xam nañ ko waaye defeen wi ci lañ faral di am njuumte lu bari ndax asaka yàlla moo wax alal ji ñu koy génne ji ak ji ak ji ak ji mooy wax itam bu tolloo nangam mooy tax itam mooy wax itam ñu ko génne ana ki ñu koy jox mu mel ne suñu borom xam gu mu xam ne dafa concerné alal te alal sax ci xol moo tax bàyyiwu ko rek doomu jullit bi mu koy defee nu ko neex waaye moo ko wax ni ñu koy defee ñu gis ne ñu bare bay tur yi moom dana am fa seen yëngatukaay ñu ne ñu ngi génne asaka waaye mu jar tur ba kese moo fay ne waaye nañ ko war a génnee moom duñ ko génnee noonu <coughs> ndax am am na ñoo xam ne sax moom duñ ko far génnee dañ koy jaxase rek ci li ñu joxe addiya mbaa nangam ak nangam te du noonu bokkuñu asaka warteef la bokkut ak addiya ñu bari dañ koy jaxase ci loolu te bokkuñu asaka laneen la addiya laneen la muy liggéey boo xam ne ñu ngi ñaan bokk jullit yëpp kon ñu jàppalante jàppalante ci ak yéen te xam ne seen njëriñ la yéen ñu ko dox moom xam ngeen ko yéen kon seen bopp tax leen a jóg kon mbokk ma ngeen di seeti di ko gaaral dimbale ko moo moo leen tax a jóg ak ñi nga xam ñoo ko yelloo te duñ ko duñ ci jot muy ñaari mbir dimbale jullit bi nga xam ne da ko war a génne taxay na am na yéen yi taxay na xamu nu ko doon defee ak miskin bi nga xam ne mu ngi di ko xaar te mus mus koo gis maa dañ koy jox du ko amal benn njariñ te euh, am na génn woo xam ne amul ki njariñ génne ay million di ko joxe par ñaari téeméer ak par ñaari ji loolu du asaka waaw du du jëfi dara ndax asaka dañoo bëgg nga dimbali ci ci loo xam ne da ko amal nga jox ci nit ki loo xam ne da njariñ maa ngi fàttaliku at ci ginnaaw rek benn mbokk boo xam ne yàgg naa génne asaka daa ñëw suma kër di ma laaj wax ma ni muy séddalee asaka ji maanaam jox ñi cent mille francs ñi deux cent mille francs ba ci benn cinq mille bi mu waxee ma daaneel ma ne ko loolu dëgg la boo ko defee war-waru asaka wàcc na la waaye am na defeen woo xam ne soo ko defoon lay gën mu ne lu mu doon ma ne ko yow mbooloo nga yor moo xam ne ñi ngi liggéey ci yow ñu ca bari xam nga seeni jikko ak seenu jub li ma jàpp ni moo gën mooy boo dee joxeeti asaka nga tànn ca ñooñee koo xam da nga koy jim jox lim boo xam ni bu déwénee moom dana joxe asaka tànn na ca ba ca déwén sa ba mu ko defee am na ñu ma lim ni ma ñi jox na leen million millions ñee quinze millions ba ci million millions ñooñee ba at ma dellu seen ñoom ñëpp dañuy joxe asaka ma ne ko waaye ñi nga doon séddale par ay cent mille ak yu demee noonu bu déwénee dañ koy gën a soxla doomu kon nag nga tànn ñoo xam ne da leen di former la ngay joxe nga jox leen ci lu leen amal njariñ bañ bokk ñi génne asaka moo gën kon dafa mel nit ñi moom danañ ko génne waaye dañ leen a leer lu dëgg-dëgg ni nga ko war a génnee ñu mel noonu nag boo leen sensibiliser ne leen kat léegi kat am na lu ñu tuddee kër asaka yi kon li nga daan séddale demal yóbbu fa ñoom ñoo xam ni ñu koy séddalee ak fam war a dem boo leen ko waxee noona lañ koy defee lii nag séem bu rëy la boo xam ne ñëpp ci war a jàpp. xam naa li nga xam ne mooy sama wàll daal ci sensibilisation lépp luñ ma ci teg fas yéen naa ko tegoo. am solo lu ndax ponk la ci ponk lislaam yi diine du mat te mataluñ ponk yi te ponk la boo xam ne nag ku amuk seetlu nga xam ne xaw naa sooxee ndax dëgg la nit ñi am nañ yéene am nañ bëgg-bëgg waaye xam-xam bi noonu tax na am na ñoo xam ne war nañ war nañ koo génne te génnewuñ ko am na ñoo xam ne war nañ koo génne ñu ngi koy génne waaye nañ ko génnee du nii te diine nag yooyu yëpp nanguwu ko. bala bala laa wàcc nga génne ko jox ko ñu ngi ko war a jox ci waxtu wi ñu ko war a génnee jox leen ko ci waxtu wi ko war a jox loolu lu ci manqué rek euh, daan yi borom bi teg ci ñàkk def ki da ci dafi des loolu nag kon euh, ci tudd furudul kifaaya jàpp naa ci la bokk fexe ba nit ñi taxawu leen jàppale leen bañ man di ko euh, def ci anam gi gën a baax kon nag bépp xalaat bu ci jëm moom dañ koy rafetlu fas yéene ànd incha allah taala parce que dafa am ay jublu yu ci. ay jublu yu ci yu ci lislaam am jublu yi nag ngir mu mën a sotti dëgg-dëgg la doon cosaan mooy am réew moo daan taxawu asaka am réew yonente bi moo ko daan taxaw moo jiite woon réew mi ginnaaw mi tam réew mi ci boppam moo daan taxawu asaka di ko jël di ko dugal fa mu war a dugg buñ demee ba sunu réew yii génn ci seen loxo ndax euh, li ñuy tuddoo boobaa jullit ñi ñoo war a taxaw taxawaay booba kon buñ ci taxawee rek dana am rafet njortu ci ne jubluwaay yi ci lislaam am dana mën a sotti wala dana gën a mën a sotti moo tax ñu ci ndokkeel euh, jullit ñëpp tey ñaan itam yéen a jiñ ci am jëpp itam yàlla sottal ko te yombal ko euh, am nañ ci yaakaar ndax ñi ko séq muy Touba ci kanam mi koy taawu ak waroom xam-xam yi nga xam ne ñoom la woo ñu ànd di ko taxaw ñoo ñëpp seeni jaar-jaar ak seen démb tax na luñ teg seen loxo rek ñu rafet njort. di ziar itam ak ndokkeel eh, Touba ci kanam di sant bu baax itam bi ñu boolee ci liggéey bu réy bii nga xam ne ñu bari yàgg nañ ko mébét waaye yàlla dogale ko ci seen loxo te mooy. kër goo xam ne day dajale asaka yi jullit ñi di ko delloowaat ci ñi nga xam ne ñoo ko yelloo te loolu moo doon ndigalul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne sunu borom it dafa woon dafa waxoon yonente bi ne ko xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka yi di ko laaj di ko jël di ko jëlee ci ñi nga xam ne ñoo war a joxe asaka dellowaat ko ci fuqaraaw yi ak masaakin yi ak ña ko ña nga xam ne ñoom la ko sunu boroom delloo loole farata la liggéey bu am solo la bu rëy la itam bu mat a taxawe la bu am tuyaaba la itam bu uh, bari lu mën a jëmmal la itam bu bari lu mën a defar la itam ci biir uh, nekkiinu doomu aadama yi kon noo ngi am mbégte ci boole gi ñu ci boole di am jekku lépp lu ñu ci defloo rek fu ñu ci taxaw taxawloo rek incha allahu taala danañ fa taxawee di ñaan yàlla mu def ci barke def ci sutura def ci ndimbal ba fa mu fañ ko bëgg a àggale fépp mu àgg fa ci daraje sëriñ bi. ni ko mbokk yëpp waxee tam muy responsable bi mag a mag wala boog warte fu mag a mag boo xam gàll nañ ko ci loosu ñun ñi nga xam ñoo ñu lañ ko dénk te ku nekk war ci def loo man ba liggéey bi mën a tegu ci yoon te jaar ci yoon ndax defe naa dañ ko tuddi këru asakay rek waaye waq fa ci biir ak jëpp jëf ju coobarewu joo xam ne da koy def te bëgg mu dellu ci nit ñi dellu ci juddi yi alal jooje mën naa dugg ci biir loolu nag kon lu yaatoo yaatu loo xam ne ni tey defe naa bu ñu ko saytoo ni ko war a saytoo jaarale fu ñu ko war a jaarale bu ñu diir bu gàtt danañ gis njariñ lu bari li nga xam mën na koo jur kon daal dañuy ñaan suñu borom gën ñoo defal tawfeex bañ gën koo mën a saytu ba ñëpp mën cee gis seen bopp bu dee jëm suñu wàllu bopp nag ñun tam ni ko ñëpp waxee rek am na jag gu toll ne fépp fu ñu mbooloo mi soxlaa lu jëm ci lii daal luñ sant te muy luñ man di lu ñu xam bu soob lañ ca def lañ ca mën lañ ca xam lépp danañ ko ci def ngir liggéey bi gën a taxaw kon noo ngi sant kilifa yi nga xam ñoo ko jiite teg cant gi ci loxol Serigne Saliou mi nga xamoon ne ci bopp bi wala boog moo nekk bopp kuréel gi ñu bokk ñun mu jot lu ñu ko mboolem ñi nga xam ñoom la seqal liggéey loo xam ne nag du lu bees ci lislaam bu ñee asaka rek ba mu taxawee rek la ànd ak lii xëy na jamonoy dem ba ñu defee ko neneen nu dul noonu waaye asaka moom ba mu taxawee la jëli ko taxaw la séddale ko taxaw ñett yooyu ñoo ànd faratay asaka ak jëli asaka ak delloo ko ci ñi nga xam ne ñoo ko war a jël jël inna allaha farada alayhim sadaqatan tuqasu min yëpp ñëw ci farata la dañ ko war a jëli waaye dañ ko war a séddale kon eh, mel ni kuréel gii loolu dong la taxawee loolu loolu la taxawee kon ñu ngi ciy ndokkeel ñi nga xam ne ñoom la yàlla def mu jaar ci seeni loxo ka ca njëkk di Cheikh Mouhamadou Mourtala Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ci joxe ndigal ak Touba ca kanam mi nga xam ne moom lañ ko teg ci loxoom te muy tegin woo xam ne damay am njort ci buñ ko tegoon ci yeneen loxo dana xaw a doy waar ndax day mel ni ñoom bañ jógee seen itte dafa jëmoon ci social te asaka du dara lu muy social asaka social rek la mooy social ci lislaam kon buñ bu seen itte nekkoon loolu social te xëy na dugaluñ ci woon asaka ñu dem ba yàgg ñu jël asaka dugalal leen ko ci biir kooku moom day mel ni kon euh, def euh, jox nañ ko jën ko ña ko yeyoo kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax. xalaat nañ bu yàgg sax ne lu war na am ci dëkk bu mel ni Touba la ndax euh, Touba ku xam li tax borom sañci ko bu ñu. waxee lu mel ni azaka mu nekk benn ponk ci ponki diine lislaam yi gën a màgg yàgga taxawul lislaam ak jullit yi ci ay barab yu bari kon wax dëgg yàlla dëkk bu mel ni Touba kon dana jaadu kuréel guy saytu lu mel noonu mu sosoo woon fii ci Touba et borom xam-xam yi nekk ci dëkk bi saytu ko ci ndigalul sëriñ bi kon fu muy jaadoo fii la gën a jaadoo fii la gën a yelle kon bu demee ba taxaw wax dëgg yàlla loolu dañ ciy bëgg lool waaye nag di joxe sunu engagement ci liggéey bi ci lépp loo xam ne lu mu laaj dañ soxla ko ci dund incha allahu lañ ca man lépp ñu ko ca def membre yi nga xam ne nag ñooy composé hay ya ba ca njëkk mooy raisul hay a ki koy jiite kooku dina am naib boo xam ne moo koy wuutu mooy topp ci moom euh, dina am secrétaire boo xam ne mooy kaatib bi dina am juróom-benni membre loolu mooy mooy mooy kuréel gi nga xam ne mooy ŋànk al hay al ak ay membre nag mu am ay membre yoo xam ne ñoo nekk ci biir mu mel ne kon membre yooyu nag ñooy kuréel googu nag moo moo mooy daje daje bu njëkk euh, kilifa yi nga xam ne ñoom la wax mooy al saxsiyatul ilmiya ñoom kon ñoo teew fii te mel na ne euh, ku gis jëmm yi xam ne kenn ku nekk sa qualité bañ la xamee mooy yëngutu ci xam-xam lii doog bokk doon sa domaine ñu xam la siit nga bokk ci ñi nga xam ne dangay tasaare xam-xam di jàngale moo tax ñu ñu xalaat leen ci ñu bokk ci ñu bokk ci xëy bi. te incha allah sax ci li ko wax kon jéggi Touba Kanam wax ko ànd ci jéggi waaye. amuñ leneen luñ ci wax wees mi ngi noonu seen yoon ndax ñoom saweta la te yéen ko nii wala ñëwum islam ñëwum julli ñëpp la bu ñu ci biir mooy di xam ne rek ne Touba kanam ak kuréel gi di euh, Kër Asaka yi bokkuñu ay opération dañu leen a séparé définitivement ndax dëggam lee dafa yàlla dafa dogal mu nekk mbirum charia te lee moom dooroon mbirum mbirum euh, volonté kon dafay baax ñu xàjjal ko ba nga xam ne duñu duñu duñu duggalante bokkuñu ay compte bokkuñu benn jëflante loolu laaj bëggoon leeral ak it xam leen daal moom Touba kanam taxawaay mooy dañ ko war dénk rek mooy euh, euh, jàpp na liggéey bi rek moom taxaw bu taxawee ba noppi it xëy na luñ ci bëgg a soppi wàcc it ngir kuréel gi gën a gën indépendant su boobaay it mu Touba Ca Kanam moom dara du ci am euh, benn gàllankoor. ndaje mi nag mi ngi am ci ginnaaw tàkkusaan gi sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Mourtala moo ko jiite woon ndaje mi it li ko taxoon a jóg mooy samp ñi nga xam ne ñoo ñooy taxawal li ñuy woowee al hayatu charia xëya charia ya boobu nag ngeen ñu xam ko dafa bokk ci kuréel gu ñuy wax kër asakay kër asakay di kuréel goo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg téwér moo joxe ndigal lu ñu taxawal ko jox waa Touba ca kanam ñu amee saytu gi kër asakay li ko tax a jóg mooy loolu turi wi di wax rek mooy dajale asakay soññ nit ñi ci ñu joxe ko dajale ko ak jotale ko ñi ko war a jot loolu nag euh, kër la goo xam ne wala kuréel la goo xam ne ñetti ñetti xaaj ñoo ko séddale lu ñuy woowee al majlisul ala nga xam ne ñoom ñooy yore lu jëm ci wàllu joxañ yi ci kër gi nan la war a doxee ak lu ñuy woowee al hay'a nga xam ne lépp lu jëm ci diine ci biir kuréel gi ñoo ko yore diine ci maanaam mu gën a yaatu mi ak lu ñuy woowee al hay'a al nga xam ne ñoom ñooy doxal joxoñ yi nga xam ne ñaari kuréel yi ma njëkk a tudd ñoo koy amal euh, ñuy xamle nag ne kër asaka yi euh, mbooloo la moo xam ne sëriñ bi Tuubaa ca kanam la jox ndigal ñu di ko taxawal waaye mbooloo mu mu mu am mu mu beru di dox doxin woo xam ne jaxasoowut ak doxinu Touba ca kanam ni mu doon doxe mbooloo la moo xam ne ci asakay la tàmbalee yem ci mbiru asakay ndajam tey mii nag dañ ko doon def ngir ñetti kuréel yooyu ma tudd ñu samp benn bi ngir ñoom ñu officialiser leen ba ñoom ñu tàmbali seen liggéey muy li ñuy woowee alxay charia nga xam ne moo ne ci digg bi lépp lu jëm ci wàllu diine ci biir kuréel gi ñoo ko amee. kuréel googu it ñaar fukki nit ñoo ko séq ñaar fukki nit yoo xam ne ñuñ tànn lañ ñëpp du yëngu ci diine ak xam ki leen jiite mooy Serigne Saalix Mbacke mu Serigne Murtada ki topp ci moom mooy Oustaz Serigne Mbacke Abdourahmane ak yeneen kilifa ya nga xam ne ñoo ci topp ñu seddoo liggéey bi ci seen biir. kuréel googu it seeni yëngu yëpp mënees na koo tënk ci ñetti mbir rek bi ci jiitu mooy fexe ba kër asaka yi lépp ni muy doxee lépp di tënku ci diine ndax asaka mbirum diine la. ñaareel bi bépp laaj buy jóge ci biti di jëm si ci kër asaka yi ci laajte lu jëm ci asaka wala lu ni mel kër waaxi boobu ñoo ko yittewoo tontu yi ñetteel bi nag mooy fexe ba di jàngal nit ñi lu jëm ci asaka ak di leen soññ ci ñu di ko joxe ñetti doxi ñetti mbir yooyu mooy yi ñuy xaar ci ñoom xëy na lu ci nekk nag lu ñu mën a gën a yaatal la ci loolu bi ñu waxee loolu ba noppi kilifa yi fi teew yëpp jël nañ fi ay kàddu waaye kàddu yëpp mën nañ ko tënk ci ñeenti mbir bi ci njëkk mooy kër asaka yi ñu taxawal bëgg-bëgg la boo xam ne bu fi yàgg la bu ñu yàgg mbébét la kon suñu borom da ko da ko da ko sottal tey waaye lu fi yàgg la ñaareel bi lu am solo la ci diine waaye lu ñu soxla la ci jamono ji ñu toll ñetteel bi it wax nañ ne mën naa bokk ci liñ gën a mën a jëfandikoo ngir ndimbal mën a àgg ci ñi ko yittewoo ñu gën fee jëmmal diine ci dëkk bi nga xam ne Cheikhul Khadim bi mu ko taxawal lislaam rek a taxawal mu taxawal ko ñeenteel bi it mooy mbooloo mépp ànd nañu wax seenu noppi ak di diglu ak di digloo ci lépp loo xam ne lu ñu leen yittewoo la ci lu mën a doxal liggéey bi kon ci tënk ndaje mi fii la amoon ci kër Sëñ Tuubaa gi ci Daarul Manaan loolu mooy li ko taxawoon a jóg ñu ñaan suñu borom def ci xéewal ak tawfeex te yàggal fi Sëñ Muntaxaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah